waaw Serigne bu so jiite association doomu soxna yi bokk feggoog ceeg ñi nga xamante ni ñoo nekk ci biir tarixa yu wuute yi. maa ngi leen di nuyu yéen waa 24 du nuyu mbokki internet yëpp di jiital ci nuyoo bi Serigne Mountakha di ko ñaanal sama borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér comme noonu ko waxee soxna si ñun waa association doomu soxna yi sama nekk ci bopp bi. feggoog tamit mouvement bi nga xamante ne maa ko jiite yi ànd liggéeyal Touba suñu devoir la chaque jour bu yu miir yu mel nii bu amee ñu génn indi ci leeral ci suñu liggéey fiñ ci toll bi ci jiitu nag liggéey bi yoonu jàmmu moo ci jiitu ndax ku ne xam ne élection yi ñu nekk nii élection la yoo xam ne dafa ànd ak fitna dafa ànd ak ak ay fitna yoo xamante ne ndax ñaari opposition yi kenn ku nekk ci ñoom waxagoo foo jëm kii dafa wax ne day def élection yi kii ne moom day fas yéene kenn woote lool nag ñu tiit ci lool ba tax nañu association doomi soxna yi ñu ñëwoon fi tey di leeral mbokk yi ñi nga xamante ne ni ñoom lañ bokkal ci réew mi ak kilifa diine yi ñu àndal ci liggéey bi ñu leen wax ñu woote jàmm ndax euh, jàmm rek ki la lépp xat ndax nit ki war naa mën a def élection def wooteem ba pare tey tamit na du am waaye dañoo war a jiital ci waxtaan ndax ku mel ne président bi fi nekkoon di Abdoulaye Wade am nañ ci moom ne yaakaar na kilifa yi buñ ci jógee waxtaan ak moom mën naa indi ak daal ak ak jàmmoo ba liñ bëgg a amal ni ci élection yi ñu amal ko ci jàmm ndax ku ne xam na ne fi mu toll nii yoon yu mu jël yoon wu ñu tiital la. waaw ndax kum tiitalut ku nekk rek saxeel xel soriwut ndax ku ne xam na ne Abdoulaye yàgg na ci opposition jële woon na fi jamonoy Senghor ba léegi mi ngi opposé jamonoy Abdou Diouf yàggoon fi lool. tey tamit jamono yooyu moyen amutoon te comme que daana def ba nga xamante ne ni bu élection masaana ñëw nit ñi duñ nekk jàmm na jamono ji nga xam nii moyen am na nga xam ne nit ko fu mu nekk lu mu sori sori lu Abdoulaye Wade wax wala keneen ku mu mën a doon lu mu wax rek dana ca jote ba mën caa dégg. xam nga état bi moom am na ci part de responsabilité. responsabilité bi mu am mooy dafa waroon jiital ci négociation ak Ablaye Wade ndax mun nit ki mënut a nekk président jiite euh, parti lu mel ne PDS mu ñëw ci élection yii nii def def déposé candidat am tey tamit jàllut ñu am ay tag-tag yoo xamante ne ni moom lañ ko wanal na ko munoo cee jàll kon kooku faaw mu am loo xamante ne ni dina ko seex ci biir xolom dina ko téye kon loolu li ci jiitu woon mooy état bi jug jéem a njëkkee def waxtaan ak Abdoulaye Wade waaye nag moom moom comme que moo yor doole yor force tamit ñu ngi koy ñaan ba moom Macky Sall muy président bi mu nga xam ne mooy sortant bi ak pouvoir bi ba bu ñu jëfandikoo seen doole jooju ndax luñ ci mën doon rek askan wi ñoom ñooy subir la conséquence kon nañuy bàyyi xel loolu bu baax a baax nañ jiital waxtaan ndax ñun moom dañoo faral di wax naan africain moom ci lépp lu muy def lu nekk day jiital dooleem ba pare doog di ko waxtaan. kon nag moo tax ñu bëgg ñu jiital waxtaan wi njëkk ak président de la république Ablaye Wade ba pare doogu mën a ñëw doog mën a ñëw ci li nga xamante ne ni moom la réew mi bëgg muy ak dal ak ak jàmm te tamit loolu ñun ñu ngi ci woo képp koo xam ne kilifa nga gu nekk fii ci biir réew mi waaw duñ ci woo rek kilifa yu murid kese waaye dañ ci woo bépp kilifa goo xam ne mën nga cee dox sa wàll pour mën a andi jàmm ci biir réew mi ba nit mën a dugg ci élection yi ci jàmm génn ceeg jàmm ba nga xam ne bu ñu wootee ku nekk rek mën nga xëy dem liggéeyal sa bopp daal ñun loolu bokk na ci li nga xamante ne nii doon li ñu gën a yitteel. waaw xam nga do bi moom mbirum mbooloo la ca mbirum mbooloo moo gis lu nekk des koy waxtaane mënaguñoo jékki jublu jàppale benn candidat li fekk waxtaanaguñ ci suñu biir amal nañu réunion nag ba nii nii nii ci réunion lañ jóge moo tax ñuy indi leeral yi. réunion bi ñu indi nag mooy bi ñu jógee nii lañ ca tënk bokk na ci danañ jàppale kuy jariñ tuubaa koo xamante ne nii population Touba am dana ci gis boppam tey tamit danañ gis koo xam ne day warmaal suñu kilifa yi ñu fi nekk. waaw loolu bëgg nañ ko ci ki nga xamante ni moom la association bi jiital ndax ñun amuñ lu dul sëriñ bi amuñ lu dul dëkk sëñ bi kon lépp loo xamante ni dañ koy def fii lañ koy jiital ndax olof dana bay sa weewu tànk. kon ñun bala ñoo jug di sol suñu daal di jàppale kenn ak kii côté soit ku mën a doon dañ ciy xool njariñu askan wi te jàpp naa ne kilifa noonu la war a tëddee kilifa gu mar a doon da ngaa war a yërëm say taalibe yërëm saw askan. waaw bu dee politicien da ngaa war a yërëm say askan bu dee kilifa tamit da war a yërëm say taalibe kon tamit lañ war a doxe moo tax jàpp nañ ci biir euh, fekki weekend bi incha allah rabbi danañ mën a def déclaration mën a wax ka nga xamante ne ni moom la association bi ak mouvement àndi liggéeyal tubaa mën a jàppale mi association doomu soxna yi ndax buñ ne la yow fii nga nekk nii. dañ la fay responsabilité ñëpp yaakaar la waragoo jékki-jékki tourner sa intérêt wala sa intérêt bopp war laa tax ngay jëme foo xamante ni du nak sudul noonu moo tax lu mën a doon nag ñun dañ koy waxtaan moo tax boobu ba léegi génn guñ def déclaration kilifa yi ñu ci waxtaanal nag ci bi moo xam ci kilifay dëkk bi la ak ci kilifay politique yi ñoom bari na lool waaye jëlaguñ ci déclaration pour leeral kuñ ci mën a jàppale daal waaye allah rabbi ñu ci waxtaan fii euh, ci biir weekend bi danañ woote conférence de presse bi leeral association doom soxna yi nekk Touba ndax association doom soxna yi nekk Touba ñoo ëmbaat tamit association doomi soxna yi nekk Tivaouane ab ba Kaolack ba ba Dakar def nañ réunion Diourbel tey jii def nañ réunion tey jii ni bu ñu jógee daañu dem ci suñ Muntaxa siyaare ji ko wax ko li nga xamante ne nii moom la ñuy liggéeyal suñ bi di ko liggéeyal waa dëkk bi wax ko tamit situation yi dëkk bi toll jamono ji waaw ak yi réew mi toll yooyu yëpp daañu ci waxtaan. kon nag xam naa li ñuy def mooy diglu rek euh, suñu ñi nga xamante ni ñoom lañ ko bokkal ndax xeebuñu ci kenn ndax mbooloo lu mënti doon rek comme que euh, dañ ko boole woon ci kàddu fas ko tey tamit ci kàddu lañu ñu mën a def déclaration ba tax na daal foofu lañ ci tollagun ci politique waaye feeg euh, ci biir weekend bi feeg samedi ba dimanche incha allah rabbi daañ def déclaration bi wane kiñ àndal. waaw ñu aju ci ñun ñëpp nañ diglu. waaw tey tamit euh, ñu xaar bañ ñu xamante ne nii ñi nga xam ne ñoom lañ àndal ci liggéey bi ñëpp danañ mën a génn mën a def déclaration man leen a leeral ka ñu jàppale ak lu tax ñu war koo jàppale ndax association bi noonu lay demee dañuy xool nit ki lu war a tax ñu jàppale ko duñ jug rek jàppale n'importe qui dañuy xool kooku yan qualité am ci digganteem askanu Touba ak digganteem askanu Bawol ak digganteem ak tarixa yi kon nag noonu lay demee. waaw bari na ci ñu ci ñëw consulter candidat bari na ci ñoo xamante ne nii ñu ngi ciy wax waaye comme la ma la jiitu woon ci wax association bi moom du doxee noonu. li muy doxam mooy njariñuñ lépp la ndax lu lépp ñu ñëpp bokk moom bala nga caa dem nag da koy waxtaan ak ñëpp wala ëpp ca mbooloo ma ñu xool lañ d'accord ñu doxalee noonu bari na ñu ciy ñëw bari na ñoo xamante ñu yebal ay kilifa ñu ñëw ci ñun ñu ciy waxtaan ak yooyu. waaye comme que nag mbir yi moom dañ ko tënk ci baat kenn suñu ñoo jékki di demee noonu euh, jekk def déclaration ci waxtaan ci suñu biir waaye nag li wérta woon mooy danañ jàppale candidat boo xamante ne ni kuy jariñ Touba lay doon ku liggéeyal Touba lay doon ku respecté symbole yi Touba amee lay doon ku wàccoog loolu moom lay doon moo tax kon duñ mën a tëb tëb rek def loolu comme noonu ma ko waaye ñu ngi ciy dox am na ñu ñuy dox si tamit tey tamit ñoo ngi def ay réunion xool ba juróomi candidat yi fi nekk nii kan noonu lañ ci war a gën a àndal waaw. Mhm. waaw kàddu yi may jeexale rek mooy comme yi ma ubbee woon jàmmu ci la lépp xaj waaw nañ xam ne élection mën na am te dara du fitna du am nit du bakkan du fi loru kenn du ci gaañu ñu woote ko ci jàmm xëy suba ñëpp dem liggéey ka xam ne moom la yàlla war a dogal mu jiite réew mi kooku tamit jiite ko ci jàmm kon foofu lañ koy daanele di ko fa ubbee. ndax ñun ci jàmm jooju rek la ñu woote dem nañ ci sëñ bi sëñ bi lañ war a dem sëñ Muntaxa bu ñu fa demee leeral ko suñu liggéey bi leeral ko it tamit nag li nga xamante ni mooy tolluwaalu tooyul tolluwaalu tolluwaalu tolluwaalu réew mi réew mi fi mu toll nii waaw.